Papa Kane ñu maa ngi lay ziar sama sister sama xarit naka mu mbaa am jàmm lay lay lay Seydina lay Alsaan <laughs> ñu ngi fii kontaan nañ bu baax tey ñu ngi la fekk fii ci ki nga xam ne muy sëtu xalif bi ñu gis aussi clip bi nga xam ne génnee nga ko di rendre hommage ñi nga xam ne ñuy communauté Layène. waaw euh, comme ni nga ko waxee gannaaw yàlla euh, dañuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi sant suñuy ñaari jur di sant yàlla bu baax a baax bi mu ñu mayee e, ñu fekkee waat ko ndax daaw ñu ngi fi woon te ñi ma àndal ñii ñu laa àndalaat ñëw kon bu yàlla defee tey ñu fekkee ko ma ànd ko waat ak sumay xarit dama ci sant yàlla bu baax a baax baax a baax ndax e, ndëgë ni daaw xëy na amoon na ñoo xam te ñu ngi fi woon te at bi newuñu fi donc nag ñun dañuy sant yàlla bu baax comme ni nga ko waxee dañu ñëwaat rek ngir yeesal cofeel ak kóllëre yi nga xamante ne am nañ ko ci sëñ Abdoulaye Thiaw Laye ndax euh, maamam mooy sang bi te ku ko xam moom tamit xam ko digganteem ak sëriñ Abdul Aziz euh, bu sëriñ Babacar Sy euh, bu sëriñ Abdul Aziz Tiwaawan donc relation yooyu lañu dajale rek ñëw ngir yeesal cofeel ñëw jàppale ko ci bés bi màggal bés bi ndax maamam nag moo woote kon nag lépp lu ñu amoon rek dañu koy bàyyi ngir ñëw sagal ko ci bés bi que dañuy gis tey ci sa wàll bi nga xam ne yaa ngi ciy yëngu à chaque fois que événement su amee événement religieux dañuy gis ne da ngay génne ay clip ay vidéo di sargal ñi nga xam ne mooy communauté boobu même si buñ xamee ne abu Aboubacar wala sax ñu ñaaw njoxtu ne Tidiane la mais feeñul ci musique am moom ñëpp daal lay dalal ci musique am. waa jërëjëf ci question bi boo comme ni nga ko waxee Aboubacry moom ku ko xool benn carte d'identité la am. gannaaw yonte bi sallallahu alayhi wa sallam carte bi mu am mooy Aboubacry bu sëñ Babacar si waaye damay wax ne ku ma woy tamit rek ci barke sëñ Babacar laa la woyee ndax sëñ Babacar moom tey moom moo tax tey àdduna yëpp xam moo tax tey àdduna yëpp sopp ma kon nag comme àdduna ñoom ñëpp a ma sopp te àdduna ñi fi nekk dafa composé murit Tidiane Xaadir Ñaseen Laayeen tarixe yëpp ngi fi ba ci catholique bi kon nag ci mbaaxu yàlla ak ndimbalu suñu boroom la xëy na mu def ci man loo xamante ne xëy na pour man benn messager laa rek boo xamante ne dama war a way tarixa yëpp waaw ah, xëy na yàlla moom moo ma ko jagleel ma ci ma koy sante nag suñu borom bu baax a baax moo tax chaque événement bu événement bu jot rek damay béggal euh, kafane waaw ndax ñoom yi tamit noonu lañ may béggee kon nag baat bi ma yàlla dénk ñëpp laa ci fas yéene bégal donc loolu daal ndimbalu suñu boroom la ko waa xam nga nag dama déggoon ñu ne ñase ni laa beraloon loxo léegi nee nañ laaye ni laa beral loxo ah, waaye nañ ko sant yàlla rek ah, waaye nag ah way naa leen de laaye ni moom xawma kan mais way naa leen te way bi ma leen way tamit euh, yëg-yëg la yëg-yëg man yëg-yëg laay demee euh, mu nekk way woo xamante ne wax dëgg yàlla balaa moo neex kenn man mii la njëkk a dugg donc nag euh, beral loxo boobu ngay wax wax dëgg yàlla xam naa ne beral naa leen loxo ndax fa laa bokk waaw maam Coumba Ndoye boobu ma way ak li Limaamu samay maam lañu donc nag su ma leen beralee loxo itam lu war la. Mhm. am na solo ñu bàyyi la nga tàggoo waaw bon maa ngi tàggu internet yëpp xam nga gars yi moom ñu ngi may tooñ nee nañ léegi xanaa catholique yi ñoo des ah <laughs> mais loolu xam naa xam naa damay bàyyi buur rek buur xam naa damay damay bàyyi buur bindal ma rek buur ah, damay bàyyi nga bindal ma. bindal ma ci Jésus rek bu ko defee maa ngi sant sénégalais yëpp di leen gërëm di béggee tarixa yi nekk ci réew mi yëpp vraiment parce que aussi aw ma seen fay lu ma génnee ñu partagé lu ma génnee itamit ñu apprécier day feeñ ci commentaire yi donc li may tàggoo rek mooy nañu ma ñaanal bu baax a baax a baax ndax liggéey bi des na lu bëree bëri bëri bëri bëri maa ngi ziar tam waa Sénégal di ziar Ndim ah di ziar euh, Aïda Kane

bépp jullit di nuyu waa axlu laayeen ñi nga xam ni ñun ak ñoom benn lañu ndax ñoo bokk lépp bis bi suñu maam Seydina Limaamu di ko def muy bis boo xamante ni baax na ci dëkk bi ngir ab dëkk dafa war a am saa su nekk bis yu mel ni ngir yaatal xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ngir yaatal liggéeyu bi nga xam ne suñu borom bëgg na ñun ñi nga xam ni di ay jullit te mu sàkk ñu bàyyi ñu fi ñu yaatalal ko ko bis yu mel ni baax na ci jërëjëf waaw xam nga fi àdduna ñaar rek a mbaax ak bot te it nit ku nekk war ngaa fexe ba sàmm sa diggante ak sa boroom defar saw jëm ba ku la gis naw la ba ku la gis bëgg mel ni yow te koo gis bañ a mel ni moom te loolu nag yii rek koy maye mooy tënku ci magul diine yi suñu yaakaar ja Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ci loolu rek la nekkoon ngir bañ lenn loo xamante ni nasaraan si ba ñeneen ñi dañ koy teg ci xeetam xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo taxoon mu bañ loolu rekk la waaye nag di nuyu Chérif Abdoul Aziz Fall mi nga xam ne moo toog jataayu Chérif Abdourahmane Fall Tilala di ñaanal suñu borom yàggal ko fi di nuyu sëriñ Abdoulaye Thiaw mi nga xam ni suñu xarit la loolu démb la ñu doon ànd waaw di ko nuyu bu baax di ko ndokkeel bu baax ci bis bi ngir li yombul jomm ak pas-pas ak fulla ak fayda mooy tax nga am ko ak defar sa jëmm ba nit ñame la waaw loolu rek ay tax nga am ko waaw loolu képp la. dernière question bi gis euh, loo xam ne nemmeeku nañ ko yéen ngeen nekk ñoo xam ne am ngeen mbooloo te am ngeen kàddu ban message ngeen yëkkati jëmale ko ci ndaw yi ngir boobule tension politique. waaw xanaa dellu si jàngale Cheikh Chérif Abdourahmane Fall Tilala la ci mooy tondiku ku nekk di teg sa waajur aw nakkar ndax ndaw war ngaa fexe ba ñila la jur say nawle lañu kon war ngaa fexe ba doo leen teg benn naqar waaw naqar nag weesuwul di def loo xamante ni ñoom kat fa ñu toog seen xel du dal seen xol du neex waaw lii nag suñu boroom moo ko dogal ci réew mi di ñaan jàll suñu boroom def jàmm ci réew mi ndax ñun jàmm lañu xam si jàmm lañu bëgg si jàmm lañuy dox. waaw suñu boroom nag mi nga xam ne dara tëw ko ñu ngi koy ñaan ci màggam mu def jàmm ci réew mi waaw loolu daal lañ ciy wax waaw jërëjëfati